ay ca salaamaaleykum mbokki askanu sunu gaal salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ñuy suivre ci bile site internet di woo ci turu Thiès Info mbokk yi amee internet ñu ngi leen di nii bu baax a baax ku ci nekk sa tur ak sa sant taxam taxam dàq na neex man la Fall Damel fas yéene nag tey ji uh, jano ak ki nga xam ne mooy uh, sunu xarit ah koo xamante ni nee naa la kenn dootu ko présenté ci mim réew ñëpp xam nañ ko ci li nga xam ne mu ngi ci yëngatu ci wàllum euh, li nga xam ne mooy théâtre euh, nekk ci ndaanaan kul fàddilu ndaanaan tey ji nag ñu fas yéene janook moom seq ak moom bi la émission di wuyoo ci turu Thiès Buzz du ma def lenn rek lu dul bàyyi ko moom mi nga xamante ne moom mooy sama ganu bés tey jii mu daal di wax euh, niyoo ak askanu sunu gaal Moustapha lan mooy taxam taxam dàq neex taxam taxam dàq na neex mooy loo xamante ne neex na de telle sorte que kenn mënu koo kenn mënu ko imaginer gu Cees rek yàq sa bopp repp nga nag ñibbiwaat Gossas fii ak Gossas passe pour 2000 nga ñibbi ngay wax taxam taxam dàqam neex ak yooyu waaw asalaamaaleykum waa Cees ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa àdduna Euh, ki ci nekk fi nga toog ñoo ngi lay jox loxo di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di siyaar ñëpp di baalu ak ñëpp di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi di ñaanal ñi tëdd ci hôpital yi yàlla yëkkati leen ci barki Seydouna Mohamed ñi ci prison yi yàlla génne leen yóbbuwaat leen ci seen côté njaboot di ñaan daal yàlla def jàmm ci réew mi. amin ah, loolu mu ñaan di ñaan gu am solo ba tax na kon yal na yàlla def jàmm ci eh, réew mu askanu sunu gaal waaye at mu bees ñu nu dugg tamit nekk at mu neex atum naataange ci ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal ak li ko wër eh, di ñaanal képp koo xamante ni rek yaa ñuy eh, seetaan tey jii nee naa leen nag du yomb ndax ndaanaan laa nekkal ku du fal dul ndaanaan ñu koy xam ñu gën ko xam ci li nga xam ne mooy dërëm gaajo dërëm tey jii bu ñu boo ñu doon wax foo tàmbalee lan nga ñuy wax. waaw moom fi mu tàmbalee aar wala fi mu tàmbalee lan. fi mu tàmbalee ci li nga xamante ni mu ngi ciy yëngatu ci eh, di wàllum aar bi. waaw aar bi nag maa ngi ko commencé fii Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar maa ngi dugg ci aar 2004 euh, démarré troupe bi ñu naan Soleil Levant Junior euh, nekkoon foofu nekk fa un an euh, jógee Soleil Levant Junior nekk troupe royukaay bu Thiès ñu nekk faak suñu président muy monsieur Aliou Aydara maa ngi koy nuy au passage di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ñu nekk ak moom foofu ak Alsaan. vraiment muy yëkkati ñu teg ñu ci loxo alsaan alsaan moom it yor ñu ci yor bu rafet tàggat ñu ci tàggat bu rafet macha allah def ak ñun ay formation yu baax a baax a baax macha allah ba looloo tax tey jii fu ñu taxaw rek di wax loolu moom dañ koy gërëmee ki nga xamante ni nii mooy ay Aydara ak ki nga xamante ni nii mooy alsaan sama aar daal foofu la démarré. foofu la démarré mën ñoo xam tamit lan moo la inspiré lan moo la dugal ci li nga xam ne mooy aar bi. waa bëgg-bëgg rek. bëgg-bëgg rek moomu ci dugal. est-ce que du saf xorom rek. non du saf xorom xam man man safuma xorom man gars yi saf xorom gi ñuy wax sax ji gisuma bëgg-bëgg rek moomu ci dugal nit ki moom li mu parce que man bi may dugg ci aar am na ci leneen lu ma doon yëngu muy karo dama doon karole vraiment ma jël ko teg ko nële dugg ci aar bi. est-ce mën nga karo ba léegi. waaw ndaanaan laaj. Hmm. li Youssou naan li Youssou Ndour naan mën naa ci bii boor waaye mën naa cee bee boor. Hmm. yée yolle <laughs> ci boor bu ne laa ma ne uh-huh. macha allah ma commencé woon foofu yàlla def ma nekk ak ci aar bi boole kook moom dama dem ba ci biir aar bi xaw ma ëpp doole yaa ngi dégg ma continuer ci aar bi di ko def ba tey yàlla di def lii. Hmm. loolu moom moo la dugal ci aar bi daal euh, li la inspiré loolu la bëgg rek la mën nañoo gis ni daal kon bëgg rek moom moo tax nga dugg ci euh, aar bi yaa ngi ci dugg nee nga ma daanaka 2004 ak léegi yaa ngi ci dugg mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla innovation la parce que bi nga ci duggee ak léegi euh, fépp fu la Sénégalais gis dañuy bëgg dañuy kontaan dañuy am envie sax di la seetaan de léegoo sax damay gis ay vidéo nit ñi di ko statut di jël flèche bi di la ko jëmale ci ay danse yooyu noonu yooyu. def def façon bi ngay fecc ak yooyu euh, dërëm mën nañoo xam lan mooy secret bi. waaw secret dërëm moom euh, du dara lu dul euh, maanaam lan naa la ko mën a waxee sax. <laughs> yaa ngi yaa ngi ci sa secret exemple yaa ngi koy def. Uh-huh. waaw secret bi moom mooy comme li ngay gis rek ah li ngay gis moom ma di ko def rek ma gars yi moom day saan li ci bëri ñoom ñoo koy feeñal man dinaa def parrain saa théâtre sax. def benn affaire euh, sama xel génn ci damay jékki-jékki gis gars yi dagg ko dugal ko def koy éclaté ma ne waaye yow xoola lii man ndeke man def naa lii ak lii ak lii comprendre yi ci bëri nag nit ñi la muy sénégalais yi euh, ñi nekk ci bitim réew ñëpp maa ngi lay nuyu au passage di leen ñaanal képp koo xam ne yaa ngi bëgg dërëm gaajo daal di ko bége dërëm a lay bége di la ñaanal yàlla defal la jàmm. est-ce que mën nañoo xam turu dërëm fan la jógee. non maa ko créé sama waaw <clears throat> man maa ko jox sama bopp tuuru dërëm moo ngi jóge ci benn euh, euh, ci benn maçon boo xam ne dañoo àndoon di liggéey man moom ak Madiop ñu bokk benn sànc di liggéey ñuy waxtaan ni mu jékki-jékki di wax am na benn kilifa gu am na benn am na ñaari nit ñu ne woon ci ku ñuy wax Isma Gaaju ak dërëm Gaaju ay mag ak rakk lañ affaire yooyu bi mu waxee tuuru dërëm Gaaju bi noonu rek. ma ree nag da koo wax rek ma ree ma ne ko dërëm gaajo kon tuur la mu ne ma waaw am na fii ay mag ak rak lañ isma gaajo ak dërëm gaajo noonu foofu laa inspiré woo affaire bi rek jël ko jox ko sama bopp mooy def benn euh, cassette gars yi ne ma nan ngay tuddee sa bopp ma ne leen dërëm gaajo man maa ko man maa ko jox sama bopp waaw foofu la jóge naka nga gisee kon tour bi nga xam ne mooy turu Deureum Gadio fi mu la yëpp yëpp un peu partout au Sénégal mën nañu wax sax ci un peu partout dans le monde euh, nan nga gisee loolu. waaw sant yàlla parce que li ma li ma ci bëggoon lépp defal na ma ko tey yóbbu na ma foo xamante ne nii tey fu ma taxaw ci àdduna bi dërëm ngay dégg dërëm gaajo dërëm gaajo tey macha allah. Euh, damay sant bu baax damay santaat yàlla te xam ne lépp yàlla la daal tey jii yàlla mi jël sama jëmm ji dugal ko ci doomu euh, xolu doomu aadama yi macha allah suñu borom laay gën a sant bu baax di sant it samay ñaari way jur bu baax a baax a baax a baax. ndeysaan euh, ñu ko ñoo ko déggandoo sant suñuy waajur loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy li ñuy jëmalee kanam euh, dërëm gaajo ba tey rek ñu bëgg a xam dërëm gaajo ci lan la nekk ak dërëm gaajo fan la fan la toll ginnaaw li. waaw dërëm gaañu moom moo ngi ci ay bagages yoo xamante ni nii di moo ngi pare ay bagages yu garaaw yoo xamante nii moo ngi ci yoon bi incha allah rabi di ñëw. Mhm. waaw euh, ginnaaw euh, ki nga xamante ne ginnaaw Apova boobu est-ce que dërëm gaañu amul kenn koo xamante ni signé naag moom contrat parce que maa ngi doon dégg ci ay jamono ñuy wax diggante euh, dërëm gaañu ak ki nga xam ne mooy Clara et autre loolu nan la dem. non <laughs> Clara sama jigéen la sama nit la di nit ku baax nit koo xam ne daf ma jël taf ma ci boppam. Euh, di doon nit ku social nag euh, li tax ma jàpp Kalaara maa ngi nuyu au passage Moustapha Touré mi nga xam ne moo tax ma xam Kalaara tey Kalaara euh, da di nit koo xamante ne nii li tax ma jàpp ko mooy jigéen ju gëm boppam jigéen ju social jigéen joo xam ne xeebul kenn comprend nga tey programme bii mu mujjee jóge bi programme bi jeexee li mu jëlee ci programme bi lépp da ko jënd ay matériel ak i bagage ay don dem yóbbu ko euh, fële prison bu Liberté 6 joxe ko fa ay don vraiment ma ni mu doon sama xarit taf ma ci boppam aw ma moom nag contrat boo xamante ne nii dafa may téye ba du ma mun a liggéey kenn comprendre nga sama xarit la liggéey bu mu am dafa may woo ma ñëw jàppale ko ci mu doon nit koo xamante ne ni nit ku baax la nit ku jar a jàppale la barki Seydouna Mouhamed nit koo xamante nit ku social xam nga Clara di jigéen boo xamante ni dafa jafe jamono ji fii ci Sénégal bala nga koo xam na nga nekk ak moom di nuyu au passage ñi nga xam ne ñoo ko wër di ko jàppale ci liggéey bi rawatina ki nga xamante ni ni mooy Habib euh, nekk ci wetam di ko jàppale moom it maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm vraiment ñoom it ay nit ñu baax lañ mais Clara moom sama jigéen la sama nit la lu ma am daf ma ciy woo comprendre liggéey muy séeréer muy sketch gi lépp dafa may woone ma kaay ñu liggéey te bokk na ci nit ñoo xamante ni nit ku ma jox cër la nit koo xamante ne ni ku xam sama àq la ku xam sama gëdd la billaahi wallaahi wa taala su ma demee tournage hôtel la may jëlal teg ma ci condition yu baax wallaahi wal azim yëkkati xaalis bëri jox ma ko waxuma ko ngir tagg ko waxuma ko ngir lim may jox ak yooyu man nit soo amee di jàppale néew di doole rek dama lay naw te moom alalam néew di doole yi la koy jox lépp lu mu am da koy yëkkatiwaat jox ko néew di doole yi jigéen boobu jigéen bu jar a jàppale la man de su ma mënoon a am audience ci président de la république dama naan ko jàppaleel Kalaara parce que jigéen bu jar a jàppale la. Mm-hmm. ñoo ko déggandoo ba tax na kon ma askanu sunu gaal mën nañoo gëm ni daal kon signé woo ak ki nga xam ne mooy Karala contrat kon képp koo xamante ne rek soxla na la mën na la woo. waaw si wu ma moom contrat bu muy tënk quoi. am naa ak moom ay contrat nag am naa moom contrat yoo xam ne contrat wu liggéey ak moom la ma comme contrat boo xamante ni ni aw ma droit dem fenn ci moom rek laa yem contrat boobu laa amul ak Clara mais am naa ak moom contrat yoo xamante ne nii yu ñu war a liggéey la ma ak moom waaw. ba tey euh, dërëm euh, Gadio euh, ñu gis ko léegoo léeg muy ànd ak ki nga xam ne mooy Baye Gaaya ndax mën nañ xam relation dërëm Gadio ak Baye sama xarit sama doomu ndey yaayam da ko yëkkati teg ko sama loxo ne dénk naa sama doom hmm. mu nit muy xale bu ma déggal. gune gu baax gune gu ma bëgg it macha allah ma koy ñaanal bàyyi yàlla defal ko jàmm ubbi buntu wërsëgam yëpp mu dund dund ba tabaxal yaayam kër yóbbu ko màkka ci barki Seydouna Muhammad dama koy ñaanal parce que nit ku baax la nit ku jar a jàppale la parce que dafa bëgg ndaayam nit nag soo bëggee sa yaay àdduna war nañ laa mun a jàppale maa ngi koy ñaanal bàyyi sama xarit sama doom ndey sama genn wàll sama lépp. waaw yéen ñaar seen duo noo ko gisee. waaw baax a baax a baax. Euh, bi ci des sax Moustapha am na lu ma bëggoon wax ñoo ngi waajal suñu bis bi muy le 10 avril incha allahu rabi ñu war a sargal ñaari jëmm doomu aadama yoo xamante ne nii tey ñooy suñu président fii ñooy suñu ministre muy Habib Kane ak Pape Doumbia Habib Kane man mun naa ne tey jii su ma doon fal président social de l'année moo Pape Doumbia laa koy fal fii Thiès duñ tànqam lu kenn duñu nëbbatu kenn foo leen fekk am sa soxla boo ñëwee ñu fajal la ko Thiès jooyatuñu président ndax Pape Doumbouya ak Habib Kane kon ñoom ñaar ñooñu dañ leen war a sargal le 10 ma leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ci barki Seydouna Muhammad Habib Kane sama xarit la Pape Doumbouya sama xarit la. gërëm yaa ngi publicité de. non publicité wu ma samay nit lañ rek. ñamewu maa toog fii wax ba dem te du ma tudd Habib Kane ak Pape Doumbia lool moom xalaatuma ko barki Serigne Sall loolu dëgg la daaw ngeen doon euh, sargal euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Abdoulaye Diouf ak Serigne Medoune Seye ñu bëggoon xam rek sa diggante ak ñoom Serigne Medoune Seye borom tawféex sama xarit la sama nit la yal na ko yàlla defal jàmm ci barki alxuraan jëmm ju jëmm ju bëgg la borom tawféex maa ngi koy ñaanal moo ko seexu naa sey borom seetu bitik yàlla defal ko jàmm ci barki Seydunaa Muhammad borom taw féex borom taw féex borom taw féex borom taw féex bu muy juróom-ñaari yoon sa léppay féex sëñ Abdalaa Diouf sama xarit la sama nit la sama lépp la teraanga gu ne defal na ma ko ci àdduna moo njëkk a yëkkati oto jox ma ne ma demal nga liggéey comprendre nga lu ne defal na ma ko moom it Diouf a ñoo ko bàyyi gaañi maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm bàyyi kaak ay soxnaam bàyyi kook njabootam ci barki Seexul Xadim barki Serigne Saliou ñu bëggoon xam itam ne euh, ki nga xam ne mooy dërëm Gadio lan lay xaar ci euh, jéem a fexe demal boppam jéem a créer yëfu boppam yor euh, mbiru boppam. waaw léegi léegi rek yàggatul incha allah rabi maa ngi ci nag bu baax maa ngi ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax incha allah kooku moom Moustapha di nga toog tuuti gis Deureum Gadio ci yeneen facettes yoo xamante ne nii tey macha allah. ñu ne ci at mu bees ñu bëgg a xam Deureum lan la indil Sénégalais yi ci at waaw jàmm rek laa leen indil di leen ñaanal jàmm damay ñaanal ñëpp jàmm parce que ñoo ngi door a dugg ci at mi di leen dig nag ay sketch yu garaaw yoo xamante ne nii dërëm gaaju moo ngi leen koy dig ci atum 2020 bi ay sketch sax laay wax ak ay série yoo xamante ni ah, Moustapha ah. nee naa la ma wax Fall Damel. Fall Damel Fall Damel ah, ba nga ñëwee Thiès lu ñu la tuddee Fall Damel rek leen rek li nga nekkee ci dëkk bi lépp xam naa ko nag. yow lan laa nekk ci gisee sa patron dinaa waxtaan ak moom na ko faal dammel waat ko saas <laughs> li mu nekkee ci dëkk bi lépp gis naa ko. dëkk bee neex rek. ah waa baax na baax na Cees kaay moom bis boo leen moytu <laughs> ci barankaal lañ lay fekk. <laughs> di ku baax vraiment ah, di koo xamante ni ndeysaan ah, jàmm ji ah, yaatu na lool bari na lool nga ne ci 2020 bi daal am na looy waajal ñi nga xam ne ñooy say fans. waaw am na lu ma leen di waajal bu baax Moustapha ah 2020 ci Fall Damel cey 2020. 2020 ah Moustapha di nga gis lu garaaw barki Serigne Saliou mais nag Moustapha dama kontaan ci yow dama lay ñaanal yàlla defal la jàmm yàlla defal la jàmm ci bërëb bii nga nekk di liggéey nit ku baax nga nit ku bëgg sa liggéey nga nit ku fonk sa liggéey nga nit ku respecté sa liggéey nga dama lay ñaanal yàlla defal la jàmm bu baax a baax a baax a baax nga ñaanal ma yàlla. defal ma ma takk ñaari ñaareel. am nga benn n'est-ce am naa benn maa ngi ci ñaar laa bëgg fi mu ne nii. di ñaanal sama jigéen mama Thiam borom njom la yàlla defal ko jàmm ci barke Seydina Muhammad yàlla may ko gudd fan. waaw di ñaanal sama soxna yàlla defal ko jàmm ci barke Seydina Muhammad Moustapha Thiey la diis. tey la 10 non le 10 du yomb mais dërëm nga ni euh, gis nga ki nga war a takk ñaareel ba pare. déet Moustapha déggoo fi ba léegi gis naa ko. kon mbokki askanu sunu gaal ñoo ko déggandoo nee na pare na pour takk ñaareel te gis na ki nga xam ne moom la war a takk ñaareel. la kañ <laughs> ah la kañ nga koy takk le 10. dama ne la tey le 10 avril sunu anniversaire doo ci takk ah bu ci xajee ma takk de est bu ma ci génnee du ma takk est-ce que du ma takk la 11 tey la 11. donc kon le 11 du yomb euh, ci la war a def li nga xam ne mooy euh, anniversaire am bi eh, mook Mbaye Gaye lendemain ba le 11 ci lay takk kon le 10 la anniversaire bi mbokki askanu Sénégal takkuma de bu mu ma dugal de dërëm gaajo takkagul dinaa takk nag takk moom dinaa ko def moom waaye takkagul yow tàppet nga rek da ragal ma lay ma bëgg laa dugal bëgg laa bul ma kar bul Makar Moustapha daa am lu muy lijjanti bàyyil bu mu sotti yëpp. ñaareel bi mu ngi ñuy seetaan. nga ne. ñaareel mi ngi ñuy seetaan. lu ma ci xam. <laughs> sama waa ji dafa ragal ba tax na kon mbokki askanu sunu gaal euh, moom la ñu seqal suñu waxtaan tey vraiment ci bi la émission di woyo ci turu Thiès Buzz euh, ana lan ngay wax rek euh, askanu sunu gaal ñaanal leen ko ci at mu bees mi nu jëm waaye itam bu fekkee sa kàddu gu mujj ak lépp loo xamante ni jàppoon nga wax ko su askanu sunu gaal te waxoo leen ko. waaw di ñaanal ñëpp jàmm ak taw tawféex di ñaanal waa Thiès Info vraiment yàlla defal leen jàmm sit bi am na solo maa koy suivre bu di ñaanal sama PDG muy Clara jigéen PDG la ñuy wax wala mun nañoo wax PDG. PDG Clara. dooma dugal de. waaw sama jigéen sama xarit sama doomu ndey mi nga xam ne tey jii jël na ma taf ma ci boppam mooy liggéey ak moom maa ngi koy ñaanal lépp lu mu sumb rek yal na ko daan fépp fu mu jëm yal na yoon bi leer lépp lu mu song rek ci barki Seydouna Mouhamed Clara yal na ko yàlla defal di nuyu Pape Doumbouya Habib Kane ñoom Arma maa ngi nuyu ñëpp. man man ak yow contrat bi ñu signé contrat wu lan la. di lii waaw loolu amul problème. loolu ba léegi yaa ngi ci ah. waaw contrat yi ah. non dàqaguma la dama fee def leneen lu moo xam ne woowaatuma la. defaatuma ko fi de. waaw yaa ngi ci biir mu Moustapha maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ci barke Seydina Mohamed waaw. jërëjëf ñu sant ko bu baax a baax a baax waaye itam dellu daal di koy gërëm moom dërëm gaajo mi nga xamante ne wax dëgg yàlla nee naa la kenn dootu ko présenté ci askanu sunu gaal la euh, a koy bégee waaye itam ñëpp koy safoo xam ko ci li mu nekk am ci fulla nag ak fayda waaye itam gëm ko lool lool ba tax na ñu ngi ko ci euh, ñaanal bovant ni apovant ba vraiment kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax euh, di sant tey gërëm képp koo xamante ne rek yaa ngi ñu doon seetaan ci bile site internet di woo ci turu Thiès Info mbokk internet yi bég nañ ci yéen di kontaan ci yéen wéy leen nag di abonné boobaak événement mi ngi dox mi ngi nice aca continuer leen di abonné te képp ko abonné rek ah bësal cloche de notification bi ngir lépp lu Fall de Mel def ak i naataangoom nga man cee jot may sant bu baax a baax di gërëm euh, sama caméra wu man bu ñaawul euh, nogay daal di jël sama sañse bi kaw ba suuf euh, ki nga xamante ni moom mooma sañseel nee naa la kooku Fafa Chene lay wuyoo may kontaan ci moom bu baax a baax a baax a baax gis nga fi nga xam ni foofu la jaarale Fall de Mel ba tax na Fafa Chene yow yaa nga nekk foofee ca randu leen fii ci Thiès moom moo lay jox lakkos yeeg daal yooyu waaw jaajëf Faa Fashion waaw jërëjëf jërëjëf Faa Fashion ñuy bég ci yow bu baax a baax di bég ci képp koo xamante ne rek euh, yaa ngi ñu doon seetaan euh, fi nga xam ni mooy ci euh, Thiès info comme di kontaan ci yéen di bég ci sama camara wu man bu ñaawal bi nee naa la malaaka camara wu man yi la mi ngi wuyee ci turu noko yi ñu gën ko xam ci Thérèse kontaan ci moom bég ci ñëpp yàlla na yàlla def ci man jàmm def ko ci yow def ko ci ñun def ko ci yéen def ko ci askanu sunu gaal jàkkin ci ëf